jëmale leen ci alkande ak sawar yow wala ñaas bi kon kayfa la nakala la mëna nekk mom alquran li nga xamne ne ganjel bi dal nakala la mëna nekk mom alquran moy li nga xamne ne ëpp lu ne ci kaw aduna kon ñu jullit yi war nañoo wagaraat alquran baax ngepp ko te alquran momu daf ñuy digal mbax dañu digal jokk bok dañu digal woor dañu digal mandu dañu digal rafetal dañuy digal ñuy jox àq yi miskiin yi ñu dekkal ak bokk yi ñu dekkal ñuy jox seen àq yi ñu am si ñun képp ku yàlla dénk warsak alxuraan digal na la warsak woowu la ciy àq miskiin yi ak la ciy àq bokk yi nga leen ko jox waaye alxuraan digal nañu tam ñuy rafetal ak masla ak rattaxal suñu diggante suñu dëkkandoo ak suñu bokki la xarab yi moo tax wa yamuruna bil birri wa salati wal aman wa bil adli wal ihsani wa itaai siba qurbi xaq wal miskini wal mudaanati ma al aqrabi wal jira alxuraan dafa am ay digle am ay tere alxuraan tere ñu mbooleem lu ñaaw tere ñu mbooleem lu ñu sib tere ñu ak mooy yàlla te loolu ku ne xam na ko lépp lu ñaaw rek ku koy def xam nga ne lii lu ñaaw mooy yàlla ka dal wa yanha anil fahsaa'i wal munkari wal isyaan wax na ci hadis bu siiw ne ñooñ alquran ñoo ñoom yàlla ñu jàng ahlul quran hum ahlullahi wa xaasat kon yalla ñu yalla deppale ñu mëna top topp fu dëgg nek waye nak yalla ñu yalla xettali ba buñ top suñu bakkan ak banex ak aduna ak saytaan bokk yi buñ bëgge top mbooleem fu dëgg nek mucc ci top saytaane ak bakkan ak banex faaw ñu ndëgal la yu moñ bokk yi na ngeen xamni moñ muñ wàccuwaay wu màgg la am ci yàlla muñ ay ngëneelu muñ lu màgg la fa yàlla wàccuwaayam fa yàlla tamit wàccuwaay wu tedd la fa muñ am kon ñu dénk suñu bopp di dénk fu ñu fi mënta toll ñuy jëfandikoo muñ te yàlla tax aji muñ ji xam ne mu ngi muñ te yàlla tax kooku mooy ki am ki ak ngëm yàlla mat balaa nga am ngëm yàlla gu mat da ngay am da ngay nekk ku dëgër kuy muñ te yàlla tax munoo am ngëm yàlla gu mat te sag muñ dëgëru sag muñ sax way muuñ bi tamit dana la xëy ci muuñ loo xam ne ña ko jiitu woon amuñu ko woon mbokki jullit yi mbaa xam ne ne ci moom muuñ moomu ci la sahabatul kiram yi xubbee woon réew ya dugal ci lislaam bi ci la sahabatul kiram yi feeñee la lislaam ci mom moñ mom ci la sahabatul kiram noté won bakkan ya ci len mujjé nek ay nit ñu dëgër ci len mujjé nek ay nit ñu bari xam-xam ci len mujjé nek ay nit ñu am koom far doon sangu dunia far doon sangu diiné ji ndax ñu jité won état ya ñu jité won islam ja te ci moñ len jëlé won loolu kon lu té ñu mëna a dëgër loo fa bi sabri yajidu kullu insaan fi mawqifil qiyamati ma qadamahu min saari al fi diiwaan ci moñ ëllëg yowmal qiyam mbooleem nit ñi ci lañ mën a ya la nga xam ne jiitaloon neen ko ci ngëm yàlla ci boobu la wax yàlla suñu borom dana feeñal jëmale ko si way muuñi ak yërmandeem ak yi xiiwalam topp mu leen di sotti ay tiyaatu ak i yool ak i ngërëmam ngir liñ doon muñ mu daal leen wax ne jàmm ñeel na leen tey ngeen dugg leen àjjana yéen way gëm yii ànd ak kóolute gërëm naa leen ci sababu muuñ bi ngeen doon muuñ mboolem natt yi ma leen tegoon kon muuñ il faut ngi dëgërloo ko buñ bëggee dund suñu diine ji ñu bëggee am ngëm yàlla gu mat buñ bëggee mucc buñ bëggee mën a màng li ñu alxuraan digal ngeen jëfandikoo muuñ Sayxul Xadiim digal nañu muuñ soññe na ci muuñ wax nañu ne su ngeen bëggee muuñ su ngeen bëggee jëfandikoo muuñ te yàlla tax na ngeen nangu di muuñ mboolem mettit yi nga xam ne gaar na leen mboolem coono yi nga xam ne gaar na leen na ngeen ko nangu di muuñ te yàlla tax muuñ googa nag na ngeen koy defee bu ngeen buggee koy seen ak maas na ngeen sax di muuñ te bañ di jàmbat la la leen di gaar ndax képp koo xam ne yaa ngi jàmbat la la gaar muñatoo kon muñ du ànd ak jàmbat kon muñ muñ gu rafet da ngay muñ rek te yàlla tax bañ a boole ak jàmbat ci muñ yi wax nañu tam ne muñ xiwal ya ci muñ ak cër yu mag ya ca muñ ak la ca muñ ci ay ngëneel ak may ya yàlla du ko jox ab tappet bu ragal li am ba dess yalla ak jaamam du jambar nango mu tayal tax la koy jox motax sey say waxtaan waxoon ne kun kaatima li duri wal busa tanal xastan wa taxlul jil ya mu la takusiri sagwa fa kun muta hatta tasunu nasu annaka munhim fal hen mu la yuuxta li man tawa bal rabbuna abdan saburan minhum kon ci bir lolou ci lañuy wayene suñu kaddu di wax ne dekkal bi di Touba. dëkk la boo xam ne ñi ko fi wuutu duñu mos di dañ di sàmm warma ji nga xamante ni moo taxoon mu sañ ci dëkk bii te war warma yooyu weesuwul li yàlla digle ñu soññi si taalibe yi ñu tënku ci li yàlla digle waaye ñu soññi taalibe yi ñu wattandiku li yàlla tere loolu dong mooy war yi Tuuba te mbooleem leen sëriñ bi digal digle mbooleem leen sëriñ bi digle ci dëkkam bii boo demee fekk nga yàlla digal la ko ba pare ci alquraanul karim wa ilaa muy loo dana la jàppandal nga mën a jettu ndigalal yàlla yi def ko na ko yàlla bëggee loolu mooy diglay sëriñ bi kon diglay sëriñ bi weesuwul diglay yàlla yi ay tereem itam kazalika naka noonu lépp loo xam ne sëriñ bi tere na la ko boo xoolee alxuraan tere na la ko te wax alxuraan muy wax yàlla ci noonu ci ngaa yéegee ne bu dul li la yàlla tere directement ci alxuraan da gis ne lii de boo ko boo ko wattandikoo dana la sori la la yàlla kon loolu moy diglé sëriñ bi ak téré sëriñ kon lan moy ci war ñu jobot bi dëkké fi xana tagat ta tagat njabot bi ta xam na njabot ne ku nekk xam dafa am ay responsabilité yu la yàlla gàlle sa njabot kenn du lijjanti boppam rek dem ku fi lijjanti sa bopp dem bu yamal xayma sa doom dana leen mus dana la balaa ngaa dem kaay ndax yàlla dafa sant nga lijjanti sa bopp lijjanti sa njabot kon nañu yar njaboot bi tàggat leen ci li sëriñ bi bëgg te mooy li yàlla bëgg ak yeneen ci li sëriñ bi alquran ba mu wax qu anfusakum wa ahlikum naara wa quduha naas wal hijaara ku ne war naa bàyyi xel loolu fegal leen seen bopp sawar ak seen njaboot la wax waxul leen fegal leen seen bopp sawara képp ku xent fegal leen seen bopp sawara fegal ko seen njaboot sawara mooma doj ak nit mooy doon matt ma koy xam doj ak nit mooy doon matt ma koy xam kon subhanahu wa taala waxe lol soññ lol ku ne warna xamne amna responsabilité ci sal jabo kon nañu yar jabo jangal len waye tagal len leen len ci bëgg sëriñ bi te moy lu yalla bëgg ciow yi fi am muy ay ciow yo xamne ñen yi ni ñu leen gisee ñenn ñi gisee nee te sëriñ bi faw du man bi def lu dul ni sëriñ bi bëgg rek ku leen yi muy samp ni yépp lim bëgg rek mooy ñu saytul ko li sëriñ bi bëgg ci dëkkam bi te mooy xormay mooy li yàlla digle ak yeneen dëkk kon ci ci ne dafa ëppal ci ci saytu lañ ko saytuloo kooku kenn du ko yedd ndax lu tax duñ ko yedd mooy que dafa amul bëgg ak yéene jum jiital ci lañ ko def loo ndax mbir bépp mbir boo xam ne am nga ci yéene am ca bëgg xëy na xër mën na la caatal wala bëgg kooku du ku ñuy yedd lurul ku ñuy jaajëfal ak i orienté rek waaye ki ñu war a yedd mooy ki nga xam ne dafa bëgg a yilif boppam ki nga xam ne dafa bëgg a tënk ci gis-gisuñu boppam wala yilif boppam te ñun de yareewuñ ñu yilif sa bopp dañu yaree ñu am kilifa di tënku ci kilifteef kon képp koo xam ne yaa ngi bëgg a génn kilifteef ba ñu leen war nañ laa war nañu jàppee sa waajur ci yedd la ba nga mën nangoo tënku ci kilifteef xam ne kilifteef ak lislaam ñoo am tubaab yu bon yi nga xamanteni seen mondialisation yi ñu bëgg a incarné dugal ko ci aduna bi kilifteef la ci bëgg jëlé kon buñ ko nang neen tàggat suñu bop tàggat njaboot gi ñu am kilifa nangoo jëfee ndigal yalla yi te yàlla tax rabbana ma ta'ala batilan subhanaka faqina asaba rabbana innaka man tudxil faqad axsaytahu ma ansar rabbana innana samina